المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي durriyataha min alsheytaani irrajim rabbi audu bika min hamadati sayatini wa audu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu gi ci def te bindal ñu ci tuyaaba judul jeex ñoo ngi nuyu di ziara itam sëriñ bi di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu may ko wér ak fan wu gudd ba naal yim am yépp mu yeggale ko ci ak kàttan ak wér dañ ànd ko moom mbokki jullit yi dañoo dellusiwaat ngir nafaraat nag ci tey delluwaat ci bind yi nga xamante ni al abdul xadim muy sëriñ tuba radiallahu anhu daa daanañu ko dénk waxtu nekk lañ ko war nafar ngir sunu njariñ rekk la ngir lu ñuy fàttali rekk la itam loolu nga xam ne moom lañ bëgg a nafar nag jamono ju nekk ak ab xew-xewam jamono ji nga xamante ni ay tiis nag mi ngi am ak kii njàqare war nañoo delluwaat nag ci sëriñ bi radiallahu anhu nafaraat lam ñu daan dénk bunt biñ ci ubb nag tey mooy nafaraat bunt bu aju ci gëm yàlla ndax gëm yàlla dafa nekk loo xamante ni waxtu wu nekk jullit bi sax su fekkee dafa juddu ci biir ay wayjur yoo xam ne ñëpp ay jullit lañ ba cay maamam sax lañ koy sant mooy bu demee ba nekk mu kàllaf mu nafaraat xool ba xam nam doon donne woon ak ngëm noona la wala déet su dee noona mu sant ci yàlla su dul noona itam mu gën koo teg ci aw yoon loolu lañ tudde tasxiixul imaan mooy wéral sa gëm yàlla looloo tax nag waxtu nekk nag bokk na ca la jullit war a ci borom bi tabaraka wa taala mooy mu xam ne lépp lu am ca yàlla la jóge jullit su fekkee xool na boppam ba xam ne ni mu gëmee yàlla kawe na kawe goo xamante ni nangul na yàlla ne lépp loo xamante ni xew na ci bëgg-bëggab yàlla la ame te su ko sunu boroom bëggutoon du am loola jullit war nay nafar ak ngëmam ba xam waxtu nekk yegg na foofu la dit su ca yeggee mooy la gën su fa yeggut nag na gën a xoolaat boppam te gën a dëralal ak ak ngëmam ndax qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana kon loo gis ci kaw àdduna lum la jaaxal-jaaxal lum du tiis na la wóor ne bu ko yàlla dogul toon loola du am kon ñu xam loolu buñ delloo ci sëriñ bi radiallahu anhu itam ci téeréb tasawudu sixaar am na fa ñaari bayit yoo xamante nii yu ama am solo la yu rëy rëy yoo xamante nii nag ci gëm yàlla war nañ koy settantal ndax suñ ko settantalee te gëmee ko noona danañ xam cër bi ñuy jox borom bi tabaraka wa ñaari bayit yooyu mooy wa wajaba al imaanu anna al athara rabbina wala yakunu lil wara laysa yakunu fi jamii al alamin muathirun fi atharin ma dal yaqin loolu lam cay wax mooy bokk na ci warugaru jullit bi gëm bëgg gëm yàlla te gëm nga wér bokk na ci warugaram mooy mu gëm nag ne jeexit jum man di gis ci àdduna ca yàlla la jóge waaye jógewut ci mbindéef jeexit muy jëf jum mën a gis ci àdduna jullit bu ak ngërëm gëmam wéree dafa war a gëm ne loola ca yàlla la jóge waaye jógewut ci mbindéef mu teg ca ne laysa yakunu fi jamii alaalimin fi jamii alamin mu athirun nee na mbindeef yi amut kenn koo xamante ni dafa beru jëf te jëf ja mu génn ca yàlla ne yàlla bokku ca ba noppi jëf ja nekk jëf bu ko yàlla bëggutoon loola du am te loolu nag rëy na lool ndax bari na loo xamante ni ñi seen a ngëm di rëng-rëng yi bari na loo xam ne dañ koy jiiñ seen mbokkam mbindeef yàkk yaakaar ne moom rekk la waaye yàlla àndu ca te loola nag wuute na ak lii nga xam ne moom la sëriñ bi di digle nee na maanaam mbindeef yépp boo leen dajalewoon woon amut ku ci mën a jeexital jeexit ju man di doon ci menn mbir lu dul ne yàlla da caa ànd moo tax mu ne mu assirun aji jeexital fii asar ci jeexit maa joo man di xalaat nag ju man di doon daa lii ma la wax nag al yaqin mooy li wér kon ñu xam ne foofu la sëriñ bi bëgg ñu yegg fa ba luñ tollool ak situation buñ mën a tollool moo xam muy wopp ak lu man di doon tiis wu man di doon ñoo xam ne lenn du xew ci àdduna si lu dul ne ci borom bi tabaraka wa taala moo ko dogal moo ko namm ci kàttanam itam ci la amee te gëm ne itam lépp lu ñu dal tam ci yàlla la jóge moo tax nag sunu euh, sëriñ bi radiallahu anhu mu waxoon ci dénkaanem yi ne bi sunu borom tabaraka wa taala waxee ne laa ilaha illa mooy amul benn buur bu ñuy jaamu te jaamu ga di jariñ te ñàkk jaamu ga di lore ku dul yàlla muy dëgg mu dëgg mi ba mu loolu ña dégg loolu ci mbindeef yi am ak jaaxle ne ñun day bëgg nañoo jaamu yàlla ju dëgg jooju nga xamante ni jaamu ko dana jariñe ñàkk koo jaamu dana lore bëgg nañ koo jaamu waaye xamuñ fu ñuy jaar sunu borom tabaraka wa taala wëlbatiku ne leen muhammadun rasulullah muhammad mii mooy ndawal yàlla lum leen moo leen di won yoon wi moo leen di xamal nu ngeen di jaamoo yàlla kon na ngeen ko jàkk ne leen ko jàkk te wuy wuti ko te lum leen digal ngeen def ko walbatiku ne yonent bi itam yow yonent bi itam nag yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik li ma la digal ngir nga jottali ko mbindeef yi nanga leen ko jottali ba mu waxee loolu yonent bi itam yonent bi def na lañ ko digaloon ndax sëriñ bi nee na yonente bi leeral na lan mooy wa lu war lan mooy lu ñu sopp lan mooy lu dagan lu baax te mën a baaxal mu xam le nañ yooyu kat muy soo toppee liñ la digal julli yeeg woor yeeg natt asaka yeeg aji màkk yi jikko ci jikko yu rafet yi itam loolu mooy yoon wi la mën a tàbbal aljanna yàlla nañ ci yàlla sóob waaye nee na yoon woowu rek nag moo mën a tàbbal nit aljanna waaye yonent bi xam na ne ku sóobu ci lu araam di ko def moo xam muy ay wax wala ay jëf wala nga soobu ci lu ñu sib wala nga sëgg ci lu ñu daganal loo xamante ni baaxul te du baaxal nee na na la wóor na yaa nga soobu yoonu sawara yàlla nañ ci yàlla musal loolu itam kon lañ cey digle déggee mooy ku def li li yonent bi digle te defe nam ko diglee te def ko ngir jëmi yàlla sóobu nga yoonu àjjana yàlla nañ ci yàlla sóob ci yoon woowe waaye koo xamante ni tam sóobu nga li yonente bi araamal wala mu sib ko bañ caa génn te tuuboo soobu nga yoonu sawara yàlla nañ ci yàlla musal moo tax nag bi sunu borom digalee yonent bi ne ko jottil itam dafa walbatiku geestu ñi gëm ne leen itam nag wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonente boobu digal jëf leen ko lum leen tere itam bàyyi leen ko kon nag ginnaaw jëfi digalal yonent ndigalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit daf koo war a xeñtu ba xam ko jëfe ko defe ko nam ko ko diglee lu mu tere itam mu xam ko fexe ba bañ bañ caa jaar noonu kon bu xew-xew amee lu mel ne wopp ji ñuy dégg itam war nañoo xam li nga xamante ni moom la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam digge woon digle woon ñu jëf ko lum mu ci tere itam ñu bàyyi ko am na ci loo xamante ni baatin la dañ koy bàyyee kilifa yi muy ñaan yi ak yu baax yi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa yàgg nañu ko digal loola ñu cay dellu te ñaan yi mënut a ñàkk xasida yi ak lépp lu baax loo xamante ni sëriñ bi xam na ko andil nañu ko ci luy jeñ ay loraange loola muy yëfi baatin bàyyi nañ ko sëriñ si nu ñu ci digal ñu def ko waaye nañ jàpp muy alquranul karim ak xasida yi waaye nag li nga xam ne mooy sababu zahir si te mooy fegu dëkkoo ak set ndax set itam diine moo ko mas di digle an nadaafatu min al imaan naka noon wa thiyaabaka fa tahir loolu muy set diine def ko mas di digle kon nag nañ ci gën a farlu gën cee waggar di ko digal njaboot gi te cee jéem a tënku ndax lépp loo xamante ni sabab la soo xamante ni su dagan la dis caa war a jàpp ngir mën a mucc eh, muccal njaboot gi itam kon loolu nga xamante ni mooy dénkaaneb eh, sëriñ bi radiyallahu anhu nañ koy bàyyi xel naka noonu itam sëriñ bi muy sëriñ bu mag bi bokkoon na ci lim ñu doon dénk ne su fekkee ba tey ñoo ngi ci gëm yàlla su fekkee xam nga ne yàlla mooy borom kàttan ga nga xamante ni amul fu mu yem nga gëmee ko noonu xam ne mooy borom kàttan ga xam ne amul fu mu yem te borom kàttan googu moo la digal ay ndigalam ne la soo defee ndigal yi maa la ca dig lii moo la tere ay tereem ne la soo defee tere yi te maa la tëkkoo lii te mu wóor la ne annahu ala kulli shay'in qadir nga wóor la ne mën na lépp itam attan na lépp moom yàlla itam kon nee na la nga ca war a taxawee mooy jëfe ndigal te bàyyi tere loolu kon nañ koy bàyyi xel mooy ginnaaw gëm nga ne yàlla mën na lépp te moom yàlla moom moo lay digal santaane yi moo la moo la dël ne la boo defee santaane yi danaa la jox nangam ci tuyaaba danaa la tabbal aljanna moo la tere itam tëkku la ne ku def sama tere yi sa kër mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal te mu wóor la ne yàlla mën na lépp nee na Sëriñ Tuubaa nee na la nga ca war a teg kon mooy jëfe ndigal tey mooy tandiku tere nee na kon tam su fekkee xam nga ne yàlla mooy borom nammeel ga te nga xamante ni faalun lima yurid lu mu bëgg a def def ko te kenn mënu ca dara moom yàlla nee na soo xamee loolu nag war na laa jural ne lépp loo xamante ne rod na ci sam xel tam nekk lu baax la la mooy nga gaaw jëfe ji ko balaa waxtu way weesu loo gis nga gis ne lu baax la nee na na nga gaawantu jëfe ji ko bala muy wees lépp loo xam ne itam rod na ci sam xel wala ci sa xol tamuy lu ñaaw nee na bu ko jéem a jëf waaye gaawal tuub sax ndax yàlla mi xam ne lépp wa huwa ay ayna ma kuntum te fu ngeen man di nekk itam yàlla nga fa ndax yàlla moomu sëriñ bi bëgg toujours ñuy dellu si ci moom ngir ñun niñ ko gëme woon ñu koy gën a wéralaat gën koo wóoru sëriñ bi nee na yàlla moomu yun qabla xayaati kulli xay ku doon dund la njëkk muy sàkk lépp luy dund yàllaa fi nekkoon di dund wa inda xayaati kulli xay bi mu lu dund itam dafa beru moom yàlla ànd ak loolee di dund seen dund teqali ko waaye wa baada xayaati kulli xay bu fi lépp luy dund jógee itam yàlla moo fiy des te moom wa huwa xayyun laa yamuut day dund te du fi jóge wa huwa samiul basir te lu nit ki def xam na ko lu mu def mi ngi koy dégg mi ngi koy gis ku xam loolu nag danga bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci ndénkaane sëriñ bi itam mu ne lépp loo xamante ni yàlla digal na la ko mi ngi ci sa kanam li mu la tere mais mel ne dafa nekk ci sa ginnaaw li nga bëgg ci sa àdduna bëgg ko tam lay bégloo te amal la njariñ te du la lor te du la wor nee na mi ngi féete sa ndeyjoor waaye lépp loo ragal nag wala nga sib ko wala neexu la wala mu lay lor wala mu lay wor nee na mi ngi sa wetu càmmooñ soo bëggee xëcc li nga bëgg nee na jëfeel ndigal yi soo bëggee xëcc li nga bëgg jëfeel ndigal yi la sunu borom tabarak wa taala digal waaye su fekkee bëgg ngaa jañ itam lépp loo ragal nee na na ngay moytandiku tere yi kon nag boo tolloo ci waxtu woo xamante ni ñu bari am nañ tiitaange ci wopp na nga dellu ci lii la sëriñ bi digaloon mooy na sax ci ndigalal yàlla tey mooy tandiku lii la yàlla tere foofa la nekkoon ba tax mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla rek rek nag lañuy ñuy jaamu waaye yow rek itam la ñuy sàkkoo ndimbal foofee la jullit di di nekk waxtu wu nekk foofa nag moo fa la nekkoon moom sëriñ bi ba yeggoon ci ne lastu axaafu durra xalqin baadama fawattu amriya ila rabbi sama nee yegg naa ci gëm yàlla foo xamante ni ragalatuma loraa ngay jóge ci mbindeef di dal sama kaw ginnaaw ba ma fabee sama mbir mépp ko jëme ko ci yàlla mi borom asamaan nee na musta ragal loraa nga ju jóge ci mbindeef te wopp nag mbindeef la wopp mbindeef la kon wopp ji kenn du ko ragal waaye dañuy ragal ka bind wopp ji mu yàlla tabaraka wa taala ngir mu fegal ñu ko loolu moo tax lastu axaafu durra xalqin baadama fawattu amriya ila rabbi sama mu tegaat ci itam ne loraange ak njariñ ci yàlla lañ koy séentoo waaye desu ko séentoo ci nit ku weex wala nit ku ñuul addurr wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani mu dellu siwaat tam ci la sunu borom tabaraka wa taala yàgg yàgg a wax te bëgg ki gëm yàlla di ko bàyyi xel mooy loraange wopp ak lu mu man di doon bu la dalee kenn munu ko faa jëlee ku dul yàlla ndax moo ko fi andi woon moo ko fi jëlee kon nag da ngay war a dellu ci yàlla wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaasifa lahu illa hu wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir ñu xam ne kon loolu nga xamante ni mooy ndénkaani sëriñ bi waxtu wu nekk war nañ koy bàyyi xel di ci delluwaat di ko nafaraat ndax sunu njëriñul kese la mooy xam ne sunu boroom mooy yàlla <coughs> yàlla moom rekk nag moo fi ne xam itam ne yonente bi itam loolu mooy wàccuwaayam mooy moom ki sunu borom joxañ ne nañ koy roy te yonent xam itam ne yonent bi liñ ko digaloon lépp def na ko xam le ne yoon wi xam le ne yoon wi sóob nit ba mu tàbbi aljanna xam le na ko xam le ne yoon wi nga xamante ni ku ko sóobu itam dem sawara mu leeral ko jullit yépp walbatiku moom sunu borom nag ne jullit yi lu leen yonente bii digal def leen ko lu mu leen tere bàyyi leen ko wëlbatiku moom sëriñ bi itam xamal nañu ne boo gëmee na yàlla am na kàttan te kàttanam nga yëmut fenn te moo la digal dig la na la te kon lam la dig dana la ko def boo defee lam la waxoon waaye moo la tere itam tëkku la boo defee lam la tere itam tëkku ba day dal sa kaw te kenn du ko mën a dindi kon nee na nay sax ci jëfe ay ndigalam di moytandiku ay tereem mu tegaat ci ngir tënk rek saa soo gisee saa soo xamee ne itam yàlla mooy borom nammeel ga mooy mooy ka nga xamante ne lu mu bëgg def ko te kenn mënut a dox digganteem ak def loole nee na war ngaa war nga caa xamaale ne itam loo xalaat tamit lu baax na gaaw jëf ko loo xalaat tamit lu bon na bàyyi nanga ko bàyyi te tuub ko te xam ne yàlla du fi jóg mukk ndax luy dund moo la njëkk a dund te luy dund itam day ànd ak yow di dund te ak dundam ak sa dund séparé waaye soo fi jógee yow miy dund itam moo fay des te du fi jóge mukk loolu ku ko xam lenn lu lay rëng-rëngal sag dund wala lu lay tiital du du am mu teg ca itam ci li ñuy jeexale ci tënk bu njëkk bi mooy sëriñ bi wax nañu ne lépp lu la yàlla digal mm, dafa mel ne dalaa féete kanam lu la tere féete la ginnaaw li nga bëgg tam lay bégloo di la jariñ te du la lor te du la wor féete sa ndeyjoor lépp li loo ragal walla nga sib ko wala mu naqari la wala mu lay lor wala mu lay wor féete la sa ndey càmmooñ nee na su fekkee bëgg nga xëj ci li nga bëgg muy fekk si la saxal ci ndigali yàlla yi su fekkee bëgg ngaa jeñ li nga ragal ba du yegsi ci yow na ngay ku tere yàlla yi mu teg ca ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ji nga xam ne waxtu wu nekk ñu koy julli di ko jàng waaye mooy bàyyee sa mbir yëpp yàlla boo dee jaamu nga xam ne yàlla rek ngay jaamu boo dee sàkku ndimbal itam nga xam ne yàlla ci moom rek ngay sàkkoo ndimbal ndax Sëriñ tubaab foofu la nekkoon ba yegg ci ne mësta ragal loraange juy tukkee ci mbindeef ma teg ca ne mbindeef nag wopp mbindeef la wopp mbindeef la kon loraange ju jóge ci wopp du ko ragal ndax day xam ne mbindeef la muñ bind day dellu ca ka bind mbindeef moom rek jàmbat ko ko te mooy dellu ci li lu ko neex mu koy jëf di moytandi ko ay tereem mu tegoon ci ne itam loraange ak njariñ mi ngi jóge ci yàlla waaye du soqeeku ci mbindeef du soqeeku ci nit ku weex wala nit ku ñuul sunu borom itam waxoon na ne lu la lor lu la loraange fu mu la dalee na la wóor ne ci yàlla la jógee te kenn mënu ko faa jëlee ku dul yàlla aw yiw itam su la wàccee ci yow kenn mënu koo fànq ndax yàlla mooy ala innahu ala kulli shay'in qadir kon ñoo ngi taxaw foofu ba ci kanam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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

Muhammadur Rasul akbar bismillahi rahmaani rahim kon ñoo ngi toll woon ci jullit bi waxtu wu nekk dafa war a delloo si xelam nafaraat ak gëmam yàllaam ba xam fu ca tollu ndax lu mu gën a dëgër gën koo jëriñ lu mu yox yox yi gën koo lor waaye ni nga xamante ni moom la sëriñ bi bëgg ñu gëmee ko yàlla jullit bu ko gëmee noonu doo rëng-rëngi te dara du la tiital ndax danga xam ne yàlla moo fi nekk danga xam ne yàlla rek mooy kenn itam ci ay jëfam sëriñ bi itam bokk na ci dénkaane yi ñu doon jox ñu doon ñu doon firi xéewali yàlla yi sunu borom waxee ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha su ngeen jéemee waññi xéewal yàlla yi du ngeen ko mën a wàññi sëriñ bi firi ko firi moo xamante ni mu yéeme la ñoo xamante ni ñu bari seeni xel yëggu ci woon ndax dafa wax ne bi borom bi waxee ne xéewali yàlla mënoo ko waññi lu dëggoo dëggu la ndax boo seetee sa genn noyyi gi defaloo ko sa bopp te xéewal la te yaa ngi koy tegale waxtu nekk na la wóor na nag sëriñ bi nee na noyyi goo noyyi fii ne nii bokkut ak moroom ja dañoo nuroo bii da koo jiitu bii topp ca rek waaye jotewuñ lenn noyyi gu nekk xéewal la gu la sunu borom defal mu ne nag sëriñ bi ne la ndax mën ngaa wàññi sa noyyi nu mu toll nga ne ko déedéet mu ne kon wa in tauddu laay laa tuxsuuha kon bu ngeen jéemee wàññi xéewale yàlla yi du ngeen ko man mu ne bépp jéegoo boo xam ne yaa ngi koy dox mel ne dangay digal say tànk ak say cër ñuy ñuy dem bu neexutoon yàlla doo ko man kon na la wóor ne kala defal loola kàttan googee nga xam ne sa man-man boobee mi ngi aju ci man-manam loolu war nga ko cee sant ndax mën ngaa waññi sa jéego yi num toll nga ne ko déedéet mu ne kon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ci xéewal ak yàlla yi ginaa mën a wàññi say jéego num toll bul jéem a wàññi xéewal yàlla yi ndax doo ko man mu teg ca ne bépp yëngutu gi nga yëngutoo ak bépp dal booy dal waxtu nekk benn nga yëngutu walla nga dal ndax sa yëngutu yi mën nga koo waññi ndax yaa ngi yëngatu léeg-léeg jëm ci loo xamante ni sa aajo la joo bëgg a faj ndax mën ngaa wàññi li ngay yëngatu ci par bis wala par saa wala par minute wala par ay weer ak at nga ne ko mënuma ko mu ne kon bu loolu xéewal la gu la yàlla jox soo ko mënta wàññi doo mën a wàññi xéewali yàlla yi loola mooy wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha dal gi ngay dal te mooy safaanu yëngatu xéewal la ndax boo yëngutoo ba sonn dangay ngay dal dal googu ngay dal su neexutoon yàlla doo ko man ci dal yàlla gi ak xéewalam ca nga ko mane ndax man ngaa wàññi li ngay dal nga ne ko mënuma koo waññi mu ne kon bul jéem a wàññi xéewale yàlla yi loolu la sunu borom wax ci wa in ta'uddu ni'matallahi laa tox tuhsuha mu tënk ko nag moom sëriñ bi ne laa yataxarraku mutaxarrikun illa bi taxriki nee na lépp loo gis muy yëngutu di randu na la wóor ne rand googe ak yëngutoom googe bul defe ne ca jëmmam jëla waaye ci ndigalal yàlla la ci kàttanal yàlla ak mbëggeelam la mbëggeelam la su ko bëggutoon du am su dutoon kàttanu yàlla gi itam gam ca gam ca ko ca sédd dara du ko man kon lépp lu yëngutu ci yëngutub yàlla la aju waaye wala saakinun illa bi taskiini lépp lu dal itam yàlla moo ko may xéewal ba mu mën a dal ba ne tekk lu ne tekk lu nekk ci tekkaaral yàlla ga la ko jëlee kon xéewal la goo xamante ni sunu borom daf la koo defal te moom yàlla moo mu nga xamante nag moo la may ngay yëngutu di doxi say soxla moo la may nga mën a dal soon bëgg a noppalu yàlla moomu nag bokkut ak yow lenn nag ndax ku ku la beru la ku nekk fële jotewut ak yow daf laa bind te kenn bind ko moom yàlla moomu nag jalla an taxarruki wa sukun màgg na màggaay boo xamante ni du yëngutu ndax bu doon yëngutu nduroog yow te yow mbindeef nga su doon dal itam duróog yow te yow mbindeef nga kon laysa kamislihi shay'un yàlla moomu amul lenn loo xamante dañ koy gam-gam leeg moom wala muy duróog moom walam yakun lahu kufuwan ahad te amul ku tollook moom kon kooka na nga koy def muy kenn laa ilaha illa allah la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kon kooku mala sëriñ bi kooku la sëriñ bi misaal xamale la ko noonu bëgg nga gëme ko noonu mooy buur ba nga xamante ni amul benn buur bu ñuy jaamu te jaamu gay jariñ amul benn buur tam bu ñuy bu ñuy bañ a jaamu te ñàkk jaamu gay loole bu dul moom mooy ka nga xam ne kenn la amul lu ñu koy bokkaale moo moom nguur gépp te lépp lépp la man tam am kàttan ci lépp te nag laa yaxfa alayhi sayun fil ardi wala fi sama amul lenn lu ko ump ci biir asamaan ak suuf si ndax yaalamu xaainatul ayuni wa ma tuxfi sudur kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi li ñuy tëjee waxtaan yi mooy buñ ragal wopp nan ragal yàlla mi bind wopp kon mu fegal ñu wopp jëm jum mën a doon nañuy ragal yàlla mi mi bind wopp nag bam man ñoo fajal fegal wopp jum man doon nag mooy ñuy topp ay ndigalam tey mooy tandi ko ay tereem kon nan jaamu yàlla te topp ndigalam ndax ñu am li ñu bëgg lépp ci lu baax ñu am ko nan bàyyi tere yi yàlla yi kon danañu fegal lépp lu ñuy ragal nan sant ay xéewalam ndax sunu sunu sunu dool leen rek lay doon kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu xiir ñu ci ñu koy sant xiir ñu ci ñu gëmee ko nam bëgg ñu gëmee ko waaye xiir ñu ci topp ndigalal sëriñ bi xiir ñu ci itam ñu xam ne lu xew mooma xiir ñu ci itam ci ñuy sabablu ba mën a mucc ci musibaam yi ak balaam yi te loolu rek lañu sëriñ bii di digal mooy nañuy jàpp ci yàlla sunu borom tabaraka wa di ko bàyyi xel di ko ñaan lépp loo xam ne mooy musiba mu nar a wàcc ñoom ñaan yonente bi nee na mooy silaaxul mumin mooy ngànnaayam sëriñ bi yàgg na cee soññee lool idi duaa yanfau maytan fi l qubur wa yanfaul xayya wa yujibul ujur kon ñaan buñ koy fàtte bu ñu dee ñaan nag nañ seet kañu dàq ñaan lam daa ñaan ñu koy ñaane muy sëriñ bi andi la fii xasida alquran moom waxi noppi yooyu yëpp nañ ciy jàpp tey itam nag di sabab lu sababu zahir boo xam ne ni sariya moo ko digle sëriñ bi itam digle ko ginnaaw cet lislaam moo ko njëkk a digle nañ koy bàyyi xel di seetal suñu bopp di seetal njaboot gi di leen digal ak cet yaa ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala musal ci wépp euh, bépp ay wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول akbar allahu akbar la الحمد لله الذي فضل ما شاء من الشهور والأيام وعرفنا فيها عوارف التفضيل والإنعام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا بالإحسان والصلة صلاة وسلاما يتصلان ما دامت الليالي الفاضلة متصلة أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه أسبغ عليكم نعمه منة ولطفا وبدل في بعض الأوقات السيئات بالحسنات وضاعفها ضعفا وخص بعض الشهور بمزايا الفضل ليزيد العامل فيها من الفرض والنفل من ذلك شهركم هذا الذي حظم عند الله ثوابه وفتحت فيه للرحمات أبوابه فالبزر فيه وإن جل بفضل الله موضوع والعمل الصالح وإن قل برحمته مرفوع والعفو فيه مبذول للمقصرين والرضا مقطوع به للمستغفرين قال عليه الصلاة والسلام من استغفر الله وسأله التوبة في شهر رجب سبعين مرة بالعشي وسبعين مرة بالغداة إن مات ما بينه وبين رجب المستقبل مات شهيدا مرضيا عنه لا تمسه النار جعلني الله وإياكم من الذين أقرضوا الله قرضا حسنا واهبطوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الذي اختار من خلقه نبيا كريما سماه محمدا وأولاه بلواء الحمد مقام عظيما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين سادوا بقربه وأصحابه الذين سعدوا باتباعه وحبه أما بعد فيا عباد الله ittaqu llaha waqbaluu qawla nabiyikum waqaabiluu biwajhi lqabuli maa bihi min aljamili amarakum wacmaluu fasayara allahu amalakum wa axsinuu kama axsana allahu ilaykum waclamuu anna al ayaama هيهة السياق وأن الموت سريع اللحاق ونحن بين آمال نؤملها وآجال قرب أجلها فبادروا وفقكم الله قبل بغت الآجال بالاستغال بصالح الأعمال وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والإرسال وفقنا الله وإياكم لما وفق له الصالحين من عباده وجعلني وإياكم ممن ترك اختياره ومراده لاختياره ومراده وقطع أيام عمره في طاعة الله فاجتنى بذلك ثمرة بره ورضاه وتدبروا في ذلك قول مولانا في محكم كتابه المكنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط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 الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum.